jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne mbokk yi ñu ngi fii ci Malika seet si kenn koo xamante ne boroom xam-xam la rawatina muy sëñ Mor Niang sëñ Mor Niang tey moom la wasaare làmb seet si bari na loo xamante ne digtal nañu ko ñu buggoon koo xam moo waral tey ñu ñëw fii ci moom ngir seet si ko waxtaan ak moom ginnaaw lépp na wolof def na tungu ne du teew ñuy natt ci ëkk. dañ koy bàyyi mu nuyoo su ko defee ñu gën a wéyal waxtaan bi képp koo xamante ni bëgg nga cee jariñu jariñu ci ñi nga xamante ni bëgg nañ cee xam ci làmb ñu xam ci bu baax a baax a baax sëñ Mor maa ngi lay nuyu. sëñ Jil ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay baax ginnaaw ban sant bi sant suñu ñaar waajur sant suñu yaakaar àdduna ak àllaaxira mi sëñ Babacar Si di ñaan yàlla yokk leeram taas ñu si barkeem di nuyu waa Malika bi ñu dëkk di baalu ak ñëpp di baalu ak ñëpp di am contentement bu baax a baax si teewaay bi nga fi teew di leen ziar gi wér wér wér nag di sant waa Wassare Lamb yëpp yëpp yëpp leen nuyu leen jox seen wàccuwaay waaw leen fi indi tey muy mbirum làmb képp ku si bëgg a xam dara rek bu soob suñu borom di leen si gën a yaatal incha allahu rabbi kan benn tout tànk la nekk benn ndonga bu juddoo Parcelles Assainies màggee fa jaar fu bare bëri nag jàng alxuraan jàng xam-xam suñu borom am baax mu def suñu nag donte ko duñu baatin bu bari la wante am na baatin bu ndaw boo xam te ni suñu borom jagleel nañ ko ñu bëree bëri bëri si réew mi xam nañu bu baax a baax a baax tax ñu ngi jëflante ak ñoom mm. waaw kookoy Mor. Mm-hmm. Euh, bi bi nga duggee ci ci ci mbir meeg léegi ñaata at lay toll. yàgg na parce que lu ñu naan expérience fait la différence nii mas moom def na si 17 ans. 17 ans waaw def na si 17 ans mas moom ñu ngi si woon depuis 2002. Mm. ba 2019 loolu 17 ans la. suñu borom boole ñu si ne ku nekk nag xamante ne nag moom jëflante nañu ak ku ne ba sa mbëri si boppam ñu baree ba dañuy jëflante ak ñoom te ñun boobu baree nag dafa jotoon lu naan lu jot yomb mosu ñoo bëgg fësal suñu bopp wala ñu bëgg wane suñu bopp wante ñëpp nee nañu fi ne nii jot na lu ñuy def nga def ko parce que ëpp ñu la dara ëpp ñu la dara moo tax nag waaw lii xew tey mm-hmm. nga jot a jëflanteeg ñan ay équipe bu nawetaan wala équipe nationale wala ay ñoo xamante ne yor nañ domba tànk ci réew mi. comme football nag moom <laughs> waxatuñ ko comme mbiru football moom wax dëgg yàlla moom dañ ko tegee côté ndax Sénégal jar na si équipe bi fi gën a mag si néewtaan xam nañu bu baax a baax muy Pikine muy Parcelles muy Guédiawaye muy Ndar Louga Xombal fu ne marqué nañ suñu empreinte am na ay mbër te ni ay kilifa yoo xam te ay ministre leen ñoom jëfante ak ñoom ba si équipe nationale bi am na lu ñu si a def bu a baax a baax a baax a baax parce que man nit laa compte nii lépp lu may dugg du ma sama ak de mesure ma siy dem ba mu jeex man nitu ndam laa ndam rek laa xam équipe yi ma jëlee coupe bari na bari na lool lool lool ay équipe yoo xamante ni nekkoon nañ ci difficulté ñu la gisee xamante ak yow ci lañ jël coupe. waaw ASC bu nekk Pikine ñu koy wax ASC jàkkaarloo bu Ndar ba mu leen jëlul coupe toog nañu maximum cinquante ni. Ndar Saint-Louis. toog nañu juróomi at yoo xam te ni amuñu ko nekkoon sa ay jafe-jafe quart de finale la ñuy toogee premier tour. Hmm. ba mu si ñoom la suñu borom def ñoom coupe mi ngi nekk Pikine hmm. ñëpp xam na ne ay jafe yu métti la nekkoon hmm. toog nañu presque 6 ans 7 ans jël ñu coupe ba nga fa yàlla def ñu jël coupe. jël coupe waaw ren Jokkoo bu Mbuur yàlla def ñu nekkoon si ay jafe-jafe ñoom it. ba damay boole ñoom amuñu woon sax ndam. mas bi des bu ñu lee sax toog ma ñëw yàlla def mu jël leen coupe ASC Hann bu xombal ba may ñëw si ñoom amuñu woon ndam ñoom it ba ma ñëw si ñoom yàlla def ñu jël coupe Louga ASC yi bari na lool lool lool lool bu ñu doon lim tey duñ fu jógee fubal sëriñ si koy naan ñaan nangu ñu leen si yàlla may ñi nga xam te ne dañ koy ñaan ñoom xam nañ commencé tasanteel doon nelaw te amul nag sëñ bu mu mën a gagné 90 minutes si fubal lu mel noonu nga am ko lan ngeen mën a seetaanee équipe nationale bu Sénégal euh, góorlu ba dem final ngeen xool ba coupe bi di leen rëcc. waaw équipe nationale bu Sénégal moom xaw naa doy waar mbiram. laneen la li ñu gañe fii la nekk bii boobu di biiwu kenn biiwu Sénégal la ñu ko dugal ñu ngi fii ak sarax yi ñu si génnee te bokkul woon si match bi. kon dafa am yu génnee te bokkul woon bokkul si match am na sarax yoo te ni fii ak national mi ngi dem coupe d'Afrique wala coupe du monde hmm. sëriñ si di génn. di wane seen bopp si média bi mm. duñ am dara parce que kii day def fii kii contre fii te loolu jaaduwul mm. équipe nationale bu Sénégal mbiram deret bokk si mbiru équipe nationale bu Sénégal mm. mbiram saraxam du deret fii ñu ngi génnee deret duñu am coupe fii ñu ngi génnee deret rek duñu am coupe lu xew rek si li saala ñu ne nañ rey gàtt bi nañ rey lii nañ waa tey ku am baatin laa wax waxuma ko mul baatin ku am baatin da gis saraxu nag bu xonk cuur ñu ko remplacé ku benn am baatin laa wax nag dina gis sax bi won la lii nag rek boo amul nag du baax nga ko remplacé ku benn sarxu guro bu juróom bu remplacé nag bi li des nga liggéey ko si kurus bu dee yàlla may ne la baatin nag laa waxuma kuy làmbatu wala kuy totane te ñun suñu réew mi nag yàlla ma yàlla baal la mm-hmm. dafa bëri ñuy làmbatu mais man bu dee xëccoo rek xëccoo rek fu ma mës a xëccool boo tëddee guddi doon nelaw ak sëriñ bu ma ci doon nag ci côté xëccoo ñi ma xam nag laa wax mm-hmm. man aw jot di liggéeyal football wala mbër di liggéey ay fen wala ay weer mm. boo ma nee match bi samedi la damay bàyyi ba jeudi ma liggéey lépp loo def ma jënd ko bor bi ne pip sa dara dox ndam moom maa koy am lu mu métti métti métti may am ndam loolu ñi may seetaan ak ñi may déglu mm-hmm. <laughs> xam nañ ko bu baax tey moo nag lu ñu ko ñuy wax ni ñëpp ma ràññee wax dëgg yàlla ñëpp ñoo xam dañuy wuti ñaan si jongante mm. nañ ma ay kilifa yu mag parce que géejawaay nag wax lépp foofu la. lépp géej waay la xewee voilà marqué sama amat jàpp sa équipe yu mag ay déggoo ay notaire ay fiñ biij jàpp sa équipe yu gën a mag daal équipe yooyu yoroon nga leen waaw déggoo boobu leen yor 2014 ñu doon départemental ñoom hmm. hmm. na yaakaar naa su ma juum 84 bu 2011 mu ñu am ndam mu jël ko yóbbu ko final si mas moom ñu bu ñu ñëwee toog jamono ba de 20 ans mu ñëw dem final ba ma fay ñëw ma jël leen euh, def ñu dem final déggoo bu parcelle toog na huit ans ou bien onze ans yoo xam ne mënut a dem final. ma hmm. ko yóbbu final. équipe boo xam te ni da ngay am sikk sàkk si dinaa dem ma fa egg. Hmm. bu la neexee teel sa xaalis. Hmm. ñu waxaale ba yow maanaam nooy liggéey ci équipe da ngay da leen di wax avant match bi da nga leen wax ñaata la ñuy dóor ndam ni nu muy demee ba bu ñu bu ñu amee ndam ba pare la ñuy fay wala da ngay ñu fay avant match. waaw ñun ñuy liggéey si football yomb na bu la neexee da ngay ñëw ñu sam équipe bi. bu buñ ko sampee waxaale bu juboo nga téye sa xaalis boo jëlee coupe boo fii indi coupe bi nga ñaale ma sama xaalis bu la neexee moom téye sa xaalis mais lépp dañ ko teg si yoon parce que fii Sénégal la nit ñi dañoo doy waar mën nañu waxaale bu juboo nga téye sa xaalis yu baale ko sa kër incha allahu rabi te di nga dem final buñ tirage balaa ñoo tirage dinañ la wax ki nga am final kii nga sant final te boobu kenn tirage agul dinañ la ko wax loolu ñu may seante xam ne bu baax a baax a baax ba may am Pikine final hmm. yow de ñoom ak espoir la dañu ñu mën a 1-0 premier mi-temps deuxième mi-temps mu wàcc dugg si vestiaire yi wax ak joueur yi mm. leente ak lu mënti xew espoir bu mag la mën a yeew 1-0 mu leente ak lu mënti xew yàlla ñu la faral te yàlla ñu lay jox ndam li te boobu équipe bi mën mënee nañ ko 1-0. waaw am benn joueur boo xam sa dernier yow xanaa ah, da ngaa dof ñi <laughs> tey dañ ñu gagné de mais ak lu mënti xew ñu am ndam da nga dugg dugal dugalaat nga xam ku wóolu boppam te bu ñu duggee suñu borom dafa dañoo dugal dugaat max bi nekk dëgg max bi jeex ñu ko boobu loolu ku wóorul boppam du ko def max bu may perte dinaa xam ne max bi dama koy perte hmm. max boobu dañ may gagné parce que am dam chaque jour loolu yàlla suñu borom rek moo ko yeewoo hmm. wante max bu ñu may gagné dinaa xam ne max bii <tsk> tey du baax hmm. wante football moom ku mu doon ku ma si xëccul doo am ndam. mais match bi ñu xanaa di nga wax équipe bi ngay kiyal ne leen. match bi moom tey du baax. waaw mën naa xool ñu jógee ak parce que man am na tenue boo xam ne dama koy sol su may dem stade fekk dañuy am ndam moom laa yóbbu bis bu ma ko yóbbu rek xam ne dina am ndam parce que tenue boobu dama ko sol di am defet benn tenue képp la ñu mel si waat ñëpp <laughs> ràññe nañ ma si. tenue bi tenue lan la. bële banaa la bien jëlee la rek boo xam ne moom laay sol su may dem stade ñëpp xam na ma si yow ku ko gis ndam la su ma ko solul mën naa sol la yéen <tsk> dina am ndam. tenue bi blouson la wala wala wala wala yére olof. waaw ah, blouson la blouson la bu bële banaa ñi may yokkal tey. ñëpp xam nañu dem naa ba sëriñ si ñaan dañ may woo téléphone si football ñoom bu ñu ba jaaxle leen may woo bu ñu amee max leen may woo pour man ma dimbali leen si seen football ndar démb laa fa jugee dem fa amoon final samedi bi passé ñu nag maison balance équipe bu bu ëpp xaalis foofu dama ko duma. ñaata. 2-0. ah ah sëñ bi yow loolu moom <laughs> loolu moom macha allah di loolu yéeme na di. waaw football nekk ñu si ay gan nekk loom lu ñu làmbatu la. ndax nag ku yàgg si njaw rek doon jaw dañ say yàgg bu baax a baax a baax dañ say yàgg nag dañ say yàgg bu baax suñu àdduna yëpp si ñëw tam ko def ak si ñaan mm-hmm. léegi nag ku wax wasaare làmb xam ni ci làmb la baaxoo mm-hmm. léegi mbëru làmb yi am na ci mbër yooyu jëflanteel waaw am na ñu ma ciy jëflanteel ñu bari mm-hmm. ñu bari sax ñoom te nii suma ay njiit lañ suma ay xar lañu duñ dugg si leen teeg ñu seen téléphone woo ma si daara tamit te woow ma bas ñu yor seen xar ñu bëree bëri bëri bëri su ma indi lañu làmburoon naa sa gën dem sama yoon hmm. see ko te 2003 2004 mais boobu dañ ma tere woon sama benn kilifa moom parce que nag ndawoon laa boobu gën naa nekk tout tànk hmm. xale mun ma bu dugg mbër bu mag amoon commencé si ba mu dee mu woo ma ñu hmm. baal ba mu jot bu jotee àdduna yëpp dañ la dégg te gëm naa ni am na mbër yu may jëflanteel ñoo xam ne li may wax. mbër bi am combat ñeent semaine avant weer ma lay topp di la déedéet dem naa la toogal ba làmb ji des 5 jours. juróomi fan. juróomi fan nga ñëw bàyyi la mu def lu ko neex. sëñ bi mbër yi dañ lay jàpp 2 mois avant. <laughs> waaw ak ñu ngi koy def man bépp mbër boo ma lay ñaanal la jalo ngay ñëw baal moom des juróomi fan nga ñëw. Hmm. lépp loo xam sa adversaire defoon nag lépp ak lu mënti doon ak ñu koy ñaanal dama koy jindi su arbitre ne pip ma def lonte ñoom juróomi mbër lañu santeen si biir géew bi. muy jàkkaarloo mbër mi jàkkaarloo juróomi mbër. juróomi mbër doo bëri de <laughs> du ma yóbbu sa mbër bi daa am gars yi dañoo baax di wax rek. comme mbër yi nga mos yóbbu stade yëpp am nañ ndam. si kattan suñu borom am na si mbër boo xam ne du ma tudd trop mais su ma dina xam. Hmm. dafa jël benn làmb ànd ko ay mboqam. fu ñu dem ñu leen jox leen avance bi dañ leen daan fu ñu dem nag ñu jox leen avance bi dana may daan papaam daal may woo téléphone man ko ñëw mu ñëw ñu toog ñu waxtaan mu ma ñu ñëpp dem nañ si ñoom ñu doon ñaan ñëpp dem nañ si ñoom mais kuñ si dem ne dañuy daan man ko ah ñu ne man ko incha allahu rabbi yàlla bu ñu may tal ak fekke ba bis boobu barke Cheikh Tidiane Dool sa doom daanu. foo ko tegoon boobu. si lu wér. boobu da koo xool ba gis ko wala da nga am yëg-yëg bi rek wax xoolu ma ko sax mais fu ma ko waxee yàlla ak ni ma ko waxee àll fekk ma foofu ma ko loolu waaw yàlla dogal ñu tamit yàlla def sutura ban demee suñu borom may ko ndam ba moo tur moo jinne sax jiboon parce que nag làmb nag suñu borom sutural nañu si xëccoo sax la ñuy waxuñu làmb xëccoo mm-hmm. lépp loo xam ne mbiru xëccoo la jàpp nañ kuñ si xëccoo ñoo jël ndab li waaw parce nag yàlla far na ak ndaw ñi yàlla am na xale yi surtout ma ndaw lu gëm boppam ba pare yor lu wér doo caaxaan loolu laal suñu bopp di nga teg loxo lool laal dina am barke te nag ku am ñaani waajur loolu ragal dara ndax riddallaahi fi riddal waalidayni ku bëgg am ngërmu yàlla da ngay am seen ngërmu ñaani waajur moo tax lu baree bare amul dara lu ñu dugg ñu si tiit wala ñu si jël ginnaaw lu ñu si xalaat waaw ba ci làmb kon fi mu toll nii euh, mbër yi naan mbër yu mag am na ci ñoo xamante ne da di jëflante yaa ñoom wala. waaw mbër yu mag am na si ñoom dañuy jëflante ñoom su ma nee mbër yu mag ñi may wax mooy ku ni Modou Lo. Mhm. Balla Gaye Tapha Tine. Mhm. Yékini. Mhm. Euh, Yékini Junior. Garga Mbossé. Boy Niang. comprendre naa bu baax. ñooñu ñooñu. waaw ah, ah, am na suñu ma si jëflante am na suñu ma lay jëflante mais du ma bëgg ci tur. am na si ñoom ñuy jëflante su ma ay xarit lañ duñ dugg si làmb wala dem si bis waaw waaw am na si ñoo xam ne ñëm bu ñoo dugg si bis ñu ma am na si nag ñoo xam ne waxuma am na ñoo xam ne ñëm bu ñoo dem si bis te yëg tuuti seen téléphone woo ba pare ñu am na bis bi benn nii hmm. waaw ba yàlla dogal na ni am na si ko xam nañ ko bàyyi xel kenn mënu koo tee doontu waa des ren si ñi ngi lim ci ñi ma lim ñoom. <laughs> waaw waaw. gën naa jombi ko tee doon roi des arènes si ñi nga lim noonu. làmb ji dafa doy waar. futur roi des arènes. futur roi des mais nag fi ku nit ñi yaakaar. Mhm. ak fi ku nit ñi foogee du am. fi ku nit ñi yaakaaree ak fi ku nit ñi foogee ni kooku mooy nekk roi des arènes. Mhm. loolu du am. fan ko nit ñi yaakaaree. waaw fi ne nii kan ñoo war a bëri roi des arènes Euh, mu ngi dox ci diggante combat Modou ak Ama Baldé boobu mooy combat roi des arènes. mooy combat roi des arènes ñi ëpp si li ñuy wax. Mm-hmm. lu ñuy wax suñu ëpp li ñuy wax mooy Ama Baldé day daan Modou ñu ëpp ci li ñuy wax. waaw mooy Ama Baldé day daan Modou Lo war woon jël combat bi risque si moom. Mm-hmm. lu nekk risque yàlla suñu borom rek moo xam. Mm-hmm. wante su ma bënee juum si gàttal. Modou Lo pareegul sax pour perroir de pareegul ko de. waaw dese ko de. kon da nga bëgg wax li Modou Lo moom ñaata at la roi des arènes bi. Ah, dina yàgg si moom de en tout cas xam naa ne kiñ foog ni moo jël si moom roi du ko jël. moom Ama Baldé ñoo war a bëre. Ah. ci ci ci ci at bi xam naa ne du yàgg tuuti. combat boobu du am sax si at bi combat boobu du am duñ bëre du am moment du am ren du am de du am 2020 wante heure bu ñu ko mënti bëree roi yi parcelle lay desaat rek. sëñ bi kon yow xam nga combat bi ban app lay am lan moo waral nga ni combat bi du am ren te euh, promoteur bi di Luc Nicolaï jox na mbëri ku ci nekk avance donte mu ngi ci loxo yoon sax waaye mbëri ku ci nekk jàpp na avance bañ jàppal leen euh, fin juillet ni Modou Lo ak Ama Baldé dinañ daje. waaw am na loo xamante ne nii mbir la am loo xam ne doomu na nekkul doomu ñu doomu aadama doomu suñu borom la donc combat Modou Lô ak Ama Baldé din ko waxaat bu soob si borom kenn du ko bëri 2020 2021 rek soob suñu borom wante du doon 2020 bii 2021 lay am combat boobu 2021 la Modou ak Ama Baldé di bëri. sëñ bi loolu de moom wax dëgg ñun suñu xam-xam da cee néew. jërë ngeen jëf mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen làmb xew-xewu làmb jërë ngeen jëf. jërëjëf kii yàlla yombal